c'est-à-dire euh, que ñun li nga xam ne mooy liggéey bi man te waa dëkk bi man ko travailleurs yi nekk fii man ko ñu leen koy jox moo gën ñu koy jéggaani parce que loo xam ne nit ñi dañ koy def ci dëkk bi di ay gasak ay liggéey ay bon mel ni ay Senelec liggéey joxe ay facture dégg nga di sàmm te nga xam ni ñooy euh, affaire vraiment loo xam lii daal waa dëkk bi mën nañ ko ñoom ñu bañ a jéggaani di ko wuti feneen parce que je crois que loolu dana regle problème emploi bi te li nga xam ne lii moo fi am itam mooy nit ñi joxuñu leen seen ak dëgg-dëgg ci secteur yu bari yoo xam ni fi mu toll moo fi ne ci affaire transport affaire boulangerie affaire artisanat yooyu yëpp c'est des problèmes yoo xam ni yu am la ci département bi te nit ñi aussi joxuñu leen seen ak ni ñu koy organiser ak ni ñu koy defee sax muy changer parce que moo tax ñu woo leen di waxtaan fii parce que lu ci bari buñ ko waxee itam duñ ko saafara te comme duñ ko saafara nag wax dëgg yàlla ñu itam dañuy àndandoo moo tax ñu bëgg ñu ànd nekk benn nekk am des gens yoo xam ne dañuy solidariser di ànd ak nit ñi fu leen wooyee ñu taxaw parce que loolu rek moo ko mën a faj parce que buñ tasaaroo rek lay indi mais ku ne xam ne syndicat léegi nit ñi dañuy tasaaroo te buñ tasaaroo itam ki nga xam ne kii moo lay utiliser moom day daal di am doole ju mag.